asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission sociale euh, toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau euh, tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal Pape Nalla euh, Dièye nekk étudiant en master histoire des relations internationales et stratégiques ci université Cheikh Anta Diop nekk coordonnateur national bu mouvement Africa Fës ak nekk tamit euh, membre bu alliance nationale pour la cause palestinienne ñu fas yéene waxtaanee euh, crise israélo-palestinienne bi nga xamante ni moo occupé actualité bi depuis presque euh, deux semaines di jàppante yuy am saa ci ñaari réew yooyu lee di Israël ak Palestine même bu fekkente ni cessez-le-feu am na ba léegi problème bi mi ngi fi ñu ko waxtaanee ak problème de l'emploi ñàkkum xëyum ndaw yi nga xamante ni moo am fii ci Sénégal rawatina ñu am seen lijjaasa ak politique bi nga xamante ni actuellement état wu Sénégal moom la daal di euh, teg crise universitaire bi ak yeneen ponk yu soxal actualité bi euh, daañu ko waxtaanee ak kile di Pape Nalla Dièye ñu lay nuyu di la dalal jàmm. Euh, jërëjëf soxna Moreau maa ngi lay nuyu aussi di lay jaajëfal di lay remercier encore une fois ci invitation bi. donc di nuyu également euh, suñu auditeurs ak auditrices si ñuy déglu actuellement ci réew mi FM di nuyu aussi comme ni nga ko waxee l' ensemble des membres du mouvement Africa First nga xam ñoo ngi ñuy teewlu ak waa alliance nationale pour la cause palestinienne nga xam démb ñoo organisé woon ndaje boobu ca place de l'Obélisque mhm. alors comme ni nga ko waxee man maa ngi wuyoo ci turu Pape Nalla Dieye nekk ndongo di jàngee ci daara ju kawe ji nekk fii ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar nekk en master histoire des relations internationales et stratégiques donc am mbégte di waxtaanee lu ñoŋal euh, xew-xew ci réew mi lu ñoŋal aussi mbirum Palestine ak xëyu ndaw ñi. voilà mi ngi noonu ñu lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité laaj bu njëkk bu ma lay laaj moom mooy mouvement Africa fës mhm. exactement euh, mën nga ñu expliquer mooy lan. alors jërëjëf ci question bi xam naa ne dinaa mbégte loolu tontu ci ndaxte man maa créé Africa fës man maam initiative bi. Mm-hmm. waxtaan seeg ah, samay nawle samay mbokk su may mag vraiment ñu ñu adhéré si ba ji ma ciy jàppale te boobu ba tey ñu ciy liggéey donc Africa First nag benn mouvement la boo xam ñoo ko créé juste après l' George Floyd. Mm-hmm. parce que biñ reyee George Floyd aux États-Unis certainement am na ñu ne am na ñu ñu wax ne mais yéen attendez naka lañ mën a reyee nit aux États-Unis d'Amérique yéen ici au Sénégal ngeen ne di créer mouvement inspiré wu ci moom ma ne leen au moins mm-hmm. Mm-hmm. George Floyd tey am na loo xamante ni ñoo ko partagé muy lan deru nit ku ñuul mm-hmm. dañ jàpp ne George Floyd noir américain la boo xamante ni maamam bokkoon na si suñu maam yi ñu jëloon yóbbu leen fële ci États-Unis traduire leen en des esclaves moom mu bokk ci descendant esclaves yooyu. Mm. te loolu noonu moo tax ñoom ba tey seen cause fële ci États-Unis ba tey ji ni ségrégation raciale bi mooy ngi foofu ba loolu sax moo waral euh, mu mu mu faatu euh, foofu noonu nga xamante ni mooy ci Amérique te biñ ko faatee gis nañ li nga xamante ni la jur gis nañ ay ndaw. africain afro-américain ay ndaw belge ay ndaw yoo xam ñoo ngi dëkk fële ci Martinique. Mm-hmm. ay ndaw yoo xamante ni ñoo ngi dëkk États-Unis Angleterre jóg naqarlu rey gi nga xamante ni rey nañ ko ko muy loo xamante ni euh, américains yi donc teguñ ko fenn. Mm-hmm. ci loolu gis nañ ay ndaw yu ci jóg ba daane ay statue ay monument yoo xamante ni da doon symboliser colonisation wala traite négrière donc ñun nag ñu ne mais attendez ñun aussi vraiment lan moo tax waruñ a dénoncé la manière dont George Floyd a été assassiné aux États-Unis mhm. beneen bi ñu ci tegaatoon mooy que vraiment jot na tam wax dëgg fa jamono ji ñun fii ci suñu réew parce mhm. lépp luy monument di nataal statut boo xamante ni dañ ko tuddee suñu ñoo xam dañuy yàgg a noot ñoo xam dañuy yàgg a troxal euh, ñu jëlee ko fi tuddee ko nit ñi nga xamante ni vraiment mérité nañ ko lu ci mel ni euh, Louis Faidherbe tey boo demee Saint-Louis Faidherbe am na fa statut mhm. Faidherbe am am na fa lycée am na fa avenue loo xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba amu ko El Hadj Malick Sy amu ko Cheikh Anta Diop amu ko Mamadou Dia amu ko Omar Blondin Diop amu ko Valdiodio Ndiaye amu ko te ñooñu amul lépp amul luñ defarul askanu Sénégal amul luñ defarul askanu Afrique te rendre luñ leen omage boobu te feneen bu amul lenn lu rafet lu mandargaal ci suñu histoire réew. mais mais tamit est que Pape Nalla la. Mhm. Euh, comme ni nga ko waxee FEDER bu statut euh, bi nga xamante ni moo nekk fële ca Saint-Louis est-ce que yu ni mel ngeen bëgg ñu effacer ko. Mm. Euh, histoire est-ce que mën nañu effacer. histoire alors euh, man historien. man mi wa yow parce voilà et on n'efface man mi wax yow. waaw je suis historien je suis mhm. histoire lay jàng. tey jii nii suñ jógee ne nañ fi jëlee loolu nekkul pour effacer l'histoire parce que ñun ak France ñun ak colonisation ñun ak traite mhm. dafa am benn liaison boo xam daf ñu lié. Mhm. te loolu dara mënu ko dindi ndaxte histoire la et ça restera ça gravé dans les annales ça restera gravé dans les mémoires ça restera gravé Exactement. dans l'histoire mais tey histoire boobu noonu am na fu ñu ko mën a bay ñun jàpp nañ ne buñ ko bay ci yi. képp ku bëgg a xam histoire bi fi xewoon wala nga ñëw Sénégal bëgg ko xam boo demee ci musée stock par exemple statue mm-hmm. boo demee euh, Saint-Louis mm-hmm. ñu teg ko fi nga xamante ni mooy ci place Faidherbe mm-hmm. tey imaginel tey nga ànd ak sa doom bu ndaw ngeen dem Saint-Louis mu ne la yaay kii mooy kan nga ne ko kii mooy Faidherbe rey na sa maam diw re taal taal na taal na taal na village effectivement waaw maa ngi ñëw mais loolu nekkul loo xamante ni luy luy loo xamante ni luy honorifique lay doon ci sa doom boobu noonu nekkul gloire boo xamante ni mais non mais eh, non dama lay expliquer. voilà loolu dafa am. Mm. nee naa la munuñ dindi ne dafa am histoire la boo xam moo fi am. Mm. mais ñun jàpp nañ ne tey le fait que ñu jël ko teg ko ci place publique bi day mel ni ñun dañ ko dañ koy rafetlu dañ koy honorer dañ koy nawlu ñun d'accord nañ. frère bi ñëw na fi nekk na gouverneur du Sénégal deux fois rey na suñuy maam taal na suñuy village euh, def na lépp loo xamante ni ñaawteef la boo xam teg na ko ci ci sénégalais loolu d'accord nañ am na passé na mais li ñuy bañ mooy. que monument yi boobu noonu nga xamante ni ñoom teg nañ ko fa nañ ko fa jële bàyyi ko ci musée bi képp ku ñëw bëgg a xam peut bu nga dem fa te tamit histoire mun nañ ko xam à travers les traditions orales à travers les tarix à travers les ouvrages donc loolu yëpp waaw waaw ngeen suggéré ñu defar ay statut defar ay avenue tuddee ko voilà comme ni nga ko waxee mais évidemment ñun def nañ ko mais que c'est est-ce que c'est logique ngeen ne nañu effacer carrément bépp trace boo xam nga muro waxuma muro ba tey déggoo ma déggoo ma ma wax noonu ba tey déggoo ma ma wax ñu effacer ko dama la ne mhm. on ne peut pas effacer l'histoire parce que lay am am na ba pare. mais suñu daanee léegi je vous je je je vous explique. Mhm. tey jii nii boo demee fële ca France de 1940 à 1944 il a fallu l'intervention des tirailleurs africains pour que la France soit libérée de la France. Mhm. Euh, de de de de de de de l'Allemagne. Mhm. alors xam nañ ne loolu am na mais tey est-ce que boo demee fële ca France am na ci benn tirailleur africain boo xamante ni au moins pour rendre ko hommage wala rendre ko honneur defar nañ ko monument tuddee nañ ko mbedd wala tuddee nañ ko statue au moins pour pour rafetlu liggéey boobu nga xamante ni nañ ko mhm. mais amul. est-ce que comme boo demee fële ca France. boo demee ci fële ca France ak Senghor lim liggéeyal sa euh, tubaab bi yëpp ak Blaise Diagne lim liggéeyal sa tubaab yëpp te Blaise Diagne moom moo nekkoon en ki doon recruter tous les tirailleurs africains yoo xam participé nañ ci guerre bi boo fa demee tey am na lu ko tuddee ngir rafetlu liggéey boobu nga xamante def na ko te ils ont marqué l'histoire de la France de manière positive contrairement aux Français qui ont marqué l'histoire de notre pays de manière négative on n'avait pas demandé à être colonisé mhm. loolu tam foog ñu ñëwaat on n'avait pas demandé à na ko bañ mais lu ñuy naqarlu mooy ñu jël ay nit yoo xamante ni ñoom ñoo doon def loolu teg ko ci suñu lieu public yi mel ni ñun lu ñu ra euh, euh, histoire la boo xam dañ ko rafetlu. kon yéen da ngay bëgg stade yëpp ñu daane ko bu ma sañoon avenue yi nekk fii ay Pompidou euh, tout ça non je mm. Mm. ñun suñ combat loolu la woon te alhamdulilah am nañ ci gain de cause. Mm. parce que le maire man su oui changé na place de de Faidherbe au nom de place Bayal Ndar. Mm-hmm. statut bi nekkatul fa mu nekkoon jamono ji boo demee moo ngi ci centre régional de recherche bu Saint-Louis. Mm-hmm. tey jii nii boo demee Gorée. Mm-hmm. place de l'Europe bi nga xamante ni maître Augustin Senghor moo ko ko tuddee woon ko tuddee ko place la liberté et de la dignité humaine mm. te biñ yëkkatee dossier boobu maire bu Dakar Plateau dafa mettre en place benn comité boo xamante ni dina xalaat ci naka la ñu def ba changé waa turu avenue mbedd yi nga xamante ñoo ngi Dakar Plateau donc yooyu ay gain de cause yoo xamante ne bu amutoon soulèvement populaire bu amutoon la pression de la jeunesse bu amutoon la pression du mouvement Africa First kon loolu du doon am ñun lu ñu bëgg mooy mm. suñu mag kilifa diine kilifa aada kilifa cosaan suñ borom xam-xam yi nga xamante ni yàgg nañ xeexal réew mi ñu valoriser leen honorer leen looloy permettre nouvelle génération bi xam leen inspiré wu ci ñoom man je préfère Cheikh Ahmadou Bamba fële ca Saint-Louis que Faidherbe je préfère El Hadj Malick Sy fële de Saint-Louis que Faidherbe je préfère Mamadou Dia Valdiodio Ndiaye Cheikh Anta Diop fële sa Saint-Louis que Faidherbe est-ce que yéen naa la nekkul leen da ngeen di xaw a reculer bu ñu nekkee si eh, li Senghor doon wax euh, euh, mondialisation bi nga xamante ni Senghor doon na ko wax actuellement ñu koy dund xeeti jaxasoo ñëpp nekk benn yéen moment boobu ngeen mel ni ku bëgg euh, reculer encore. non voilà au lieu que ngeen xool lu ñu jëmale kanam mais dafay mel ni da ngeen a bëgg reculer euh, daal di nekk rek ci nooteel bi au lieu que ñu xool lu jëmale Afrique kanam mais ñu nekk ci nooteel bi nga xamante ni euh, France nootoon na ko Afrique wala nootoon na ko Sénégal ainsi de suite est-ce que nekkoo leen di perdre euh, du temps en voulant effacer l'histoire alors au lieu que ngeen xool lu ñu jëmale kanam. Ah. mais ngeen di attardé wu si loo xamante euh, voilà xam nga discours. si jamono boo xam ne xeeti dañu war a jaxasoo nekk benn. Mm-hmm. voilà le rendez-vous du donner du savoir. xam nga comme on est mm-hmm. dans un village planétaire. Mm-hmm. comme Senghor aussi le disait. Euh, s'enraciner et s'ouvrir. il faudra d'abord s'enraciner de sa propre histoire ou bien de son propre histoire pour après s'ouvrir ñun loolu lañu bëgg def ci nouvelle génération bi xam loo leen ñoom ñooy kan xam loo leen ñan ñoo fi nekkoon di liggéey ngir ñoom xam loo leen également aussi ñi fi nekkoon ban combat lañ doon mëne est-ce que comprendre donc loolu d'abord lañ war njëkk def ci seen bopp génnee euh, aliénation culturelle bi nga xamante dafa nekk ci ñun d'abord parce que loolu daf ñu dominer aliénation culturelle boobu daf ñu dominer tey jeune africain boo gis il se compare au blanc jeune sénégalais boo gis il se compare en français. Mm. solo ci seen mode de loolu fekk fekk bàyyuñ di considérer suñ bopp comme ay tubaab te tubaab yi considéré wuñu noonu alors donc pour ñu dem day xam foog d' ñu liggéey ci loolu ba d' abord loolu ci loolu d' abord changement de euh, des et des mentalités benn. Mm -hmm. lutter contre l' aliénation culturelle ñun ci ci domaine d' intervention boobu la ñu nekk fi mu toll nii. Mhm. on n'essaie pas d' effacer l'histoire l'histoire ne peut pas s'effacer man je suis historien quand on efface l'histoire alors quel sera c'est à cause de la France mm -hmm. que l'Afrique est mal partie mais la mhm. nouvelle génération est en train tout simplement d'assurer la relève ñun loolu suñ combat parce que tey jii nii mhm. boo seetloo Afrique on a des cadres dans tous les domaines ay jeunes africains yoo xamante ni boo demee dans les plus hautes instances de décision euh, dans les plus grandes euh, institutions tey dans le monde ñoo ngi foofu te université yi gën a mag ci àdduna bi tey ay jeunes ay jeunes africains ñoo ngi foofu di jàngale léegi lu ñu war mooy nag mhm. ñu am esprit de patriotisme boo xamante ni dañuy defaat comeback in Africa maanaam ñëwaat ci suñu réew gëm ne tey jii ni pour ñu liggéey Afrique mu jëm kanam il faudra que Euh, euh, maanaam euh, borom xam-xam yooyu nga xamante ni ñoo ngi tas partout dans le monde nekkee africain am esprit de patriotisme jàpp ne Afrique pour ñu tabax il faut que ñoom ñu ñëw ñu ñëpp ñu booloo ku ci nekk xam-xam bépp boo am soit ci science ci mathématique ci nucléaire Ah, ci bépp bu mu mënti doon ci science politique bépp xam-xam boo mënti am jàpp ne lii boo ko taxawee sa réew mun na jëmale kanam donc nga taxaw fa parce que tey dañu war a dépasser étape des lamentations comme ni ma koy waxee chaque jour mm. waratuñ fi nekk pour se lamenter euh, sur notre sort sur revenir sur way colonisation traite négrière loolu dañ ko dépasser instant li ñu war a wax mooy Afrique naka lañ mën a def ba teg ko ci les de développement te les fondements économiques et fédéral de de de de d'un état d'Afrique euh, d'un d'un d'un état fédéral d'Afrique noire tey livre boobu boo ko liiree aspect politique économique euh, énergétique yépp yi nga xamante ne Afrique mun na ci tënk ba développer bind na ko teg ko foofu noonu. ce qui veut dire que tey ñun amatuñ. Euh, droit mm. naan dañuy dem di expo di e-, importer di importer ay modèle économique nar ko adapté ak loo xamante ni re méngoowul ak suñuy réalité socio socio-économique mm. parce que l'Afrique n'est pas la France l'Afrique n'est pas les États-Unis l'Afrique n'est pas l'Italie l'Afrique n'est pas l'Allemagne l'Afrique a ses propres réalités pour développer l'Afrique il faudra d'abord développer l'Afrique par les Africains pour les Africains et développer ko ci fi nga xamante ni euh, moom lañ nekk di suñu suuf di suñu territoire au de ça développer également aussi avec les. Euh, fii ci fii ci Sénégal. Mhm. yéen si il a fallu ñu euh, faat benn noir américain George Floyd pour ngeen a teg seen mouvement tuddee ko Africa First. mais mais je vous explique est ce que est ce que loo yéen nekkul au Sénégal. du wax sa Afrique fii au Sénégal waxoo leen ngeen xaar ba lu xew fële ca Amérique mhm. te boo moytu sax George Floyd même bu fekkente ni am na oh, c'est c'est c'est il est originaire d'Afrique mhm. ah ay maamam sax Afrique lañ bàyyee ko mhm. j'en suis que jàppewul boppam comme africain dafa jàppee boppam euh, comme un américain pourquoi ngeen xaar pour ñu faat benn américain pour ngeen jóg di teg mouvement Africa euh, First donc euh, Moro xam nga mouvement bu juddu am na ci lu lu ko inspiré tey boo seetloo le mouvement de la négritude. Mhm. muy Senghor les Damas les Aimé Césaire dafa am lu leen inspiré woon. Mhm. muy la colonisation. il fa que ñu bind si apporte seen combat ci xeex boobu noonu. Mhm. moo taxoon loolu moo leen inspiré d' abord benn. ce qui veut dire que ñoom ak colonisation dafa am lu leen lii. ñaar boo demee fële ci États-Unis d' mooy le mouvement. Euh, de lutte pour euh, les droits civiques aux États-Unis mm-hmm. tey jii nii lan moo leen inspiré woon mooy la ségrégation raciale la discrimination raciale boo xamante ne amoon na foofu ci États-Unis tey si on remonte un peu dans l'histoire en 1968 amoon na ay jongante yu amoon fii ci Sénégal mm-hmm. ñan ñoo leen influencé mooy jongante yi nga xamante ni amoon na France juste pour wax la ne tey adduna bi benn village planétaire la ba lépp lu laal fële rek mun na influencer fii nii ñun suñ mouvement dañ ko créé influencé ñu mais nekkul ne dañoo. xaar ba ba tey gëmoo leen seen bopp comme ni nga koy waxee. Africa First. non mais mais mais if you say Africa en fait. c'est l'Amérique George Floyd c'est l'Amérique mais attendez. waaw mais attendez donc heure su leen arrangé. ngeen ne nous sommes dans un village planétaire. heure su leen arrangé ngeen ne voilà nañu nañu gëm suñu bopp ainsi de suite. Euh, est-ce que du ngeen contredire seen bopp tamit mais question de contre. pourquoi man ñaata George Floyd ñoo am fii. chaque jour euh, gis nga ñun. Hmm. suñu mouvement biñ ko mais attendez balaa ñuy créer suñu mouvement. Hmm. parce que suñu mouvement est composé. de plusieurs jeunes conscients, patriotes qui sont dans le pays mmh. et qui se sont engagés dans d'autres combats bien avant la création du Mouvement Africa First tout comme man ak ñeneen ak ñeneen mhm. mais biñ créé suñu mouvement yemuñ kese que ne George Floyd moo taxoon ñu créé ko lii lañ parce que dama wax gars yi ma ne leen ne Euh, mën nañ benn combat alhamdulilah yàlla may nañ su gain de cause tey jii nii waruñ mën a yemale foofu rek suñ combat war nañ mun a am intervenir ci yeneen domaine mm-hmm. tey am na injustice yu bëri yoo xamante ni mouvement Africa First jot na ci wax mm-hmm. jot na ci wax a ah, joo xamante ni da ciy wax tey réew mi lépp lu fi xew mouvement Africa First dina bokk ci njëkk jóg taxaw wax si wala bind si wala dox si wala def see émission bi nga xamante ni amoon na ay ndaw ay étudiants yoo xam amoon nañ seen bac en 2019 yàlla defoon ministre Cheikh Oumar Anne leen woon ñun bokk nañ ci njëkki njëkk a jóg wax si dox si kaas si ba alhamdulilah ba on avait même fait des menaces que ne état bi su leen orienté dinañ booy ko dinañ saboté li nga xamante ne mooy tenue examen yi la semaine qui s'en est suivie am benn conseil des ministres bu président defoon génnee benn communiqué ne ministre bi na leen orienté mhm. au delà de ça aussi am na yeneen activité humanitaire yoo xam Africa First koy def juste pour vous dire que ñun centré wuñ suñ combat rek ci noonu parce que ñun dañ dañ ne mhm. ndaw lañ te suñu réew pour ñu defar ko il faudra que ñun jeunesse ñu dugg ci ñu impliqué wu ci répondre aussi à l' appel de notre nation mm. waruñ fi nekk rek nekk ci rajo yi di critiquer di wax te duñ dañoo war a nekk aussi benn force de proposition moo tax lépp loo xamante ni lu am la rek buñ ko critiquer rek dina am loo xamante ni la ñuy la ñuy proposer ñan ñoo bokk ci Africa First alors Africa First Euh, am na ay jeunes yoo xam ils sont du Sénégal ñoo ngi ci am na ay jeunes yoo xam ñoo ngi Gambie ñoo ngi Mali ñoo ngi Congo am na yenn membres yoo xamante ni ñoo ngi euh, ci diaspora bi ay France ay États-Unis mais le mouvement est en gestation parce que déjà le 19 juin bii di ñëw incha allah. Mm. la ñuy célébrer suñu suñu premier anniversaire. Mm-hmm. te bëgg nañ nag incha allah dans l'avenir def ay tournée internationale. fépp koo xamante ni am na kuy représenter Africa Buzz ku fa nekk. Mm-hmm. ñu dem seeti ji la waxtaan ak sa askan. parce que suñu objectif mooy dem fi réew yi gën a soree ci Afrique ci monde bi fii ci Sénégal lañ koy njëkkee d'abord comment comme ça nag ñu def benn travail de massification boo xamante dinañu mën a permettre ñu participer à la prise de conscience de la jeunesse africaine parce que mm. jàpp naa ne tey pour que Afrique mën a euh, tegu ci yoonu développement il faudra que jeunesse bi xam ki ñu doon d'abord xam valeur yi ñu am xam potentiel yi ñu am gëm ko mu nekk ci ñoom parce que tey Chine lan moo tax ñu développé parce que mm. dañu gëm seen valeur dañu gëm seen bopp Japon lu tax rigueur gëm li ñu am gëm seeni i valeur Corée lu tax ñu développé parce que li ma la limal ni yëpp ci yeneen réew yi moom moo nekk ci ñoom moom moo nekk ñoom te ñun Afrique également il faut que ñu mel jël exemple ci ñooñu ngir mun a tegu sur les rails du développement. léegi Africafos ah, fan lay jëlee ay koppar pour mën a euh, financer seen i activités yi ngeen di jot a amal. merci beaucoup xam nga mm. tey ñun on mm. se dit que pour mener une révolution parce que mm. Thomas Sankara da doon wax ni on ne peut révolution et reposer cette révolution sur l'aide des étrangers. parce que ku la abali bët moo lay wax fa ngay féete te ku lay diri du doo taamu fu mu lay awale benn te bu ñu fa jógee tamit activité bu ñuy def suñuy cotisation je dis bien. Mhm. suñuy 1000 francs suñuy 5000 suñuy 2000 suñuy 10 000 la ñuy dajale ba nu mu tollool ñu jël ko dem def li nga xamante ni lañ am loolu la tollool. est-ce que mhm. ba tey amul ci kenn koo xam ne dañuy dem tàllal loxo pour que à ce que. maanaam benn maanaam mhm. benn leader politique nekkul suñu ginnaaw. ko muy leer. benn ONG nekkul suñu ginnaaw. Mhm. amul benn bailleur boo xam ne moo ngi ginnaaw Oricafos di koy accompagner. di koy bokk leen woon ak ñu doon soutenir euh, Ousmane Sonko. non non non parce que lu ñuy naqarlu la. Mm. parce que tey mënoo nekk activiste ils sont avec euh, Ousmane Sonko. mënoo nekk mënoo nekk mënoo nekk activiste politicien cagoulé activiste yore mouvement ñuy ñuy sa mouvement ñu ràññee ko ci benn parti politique. un vrai activiste doit là pour au service du peuple. mais pas nga nekk fi mbubboo benn benn benn benn pa benn benn parti di ci di ci liggéey ñun gëmuñ loolu quoi ñun liñ gëm mooy di teewal suñu askan su amee problème ñu wax ci suñ mënee intervenir def ko. kon liy guy di def àndoo ci. alors non foofu du ma fa dugg du ma fa dugg. du ma ah, tudd par rapport ak guy. non non ma fa du la parce que guy fës na ci activisme bi ràññee nañ ko. mais à un moment donné euh, nee na sax bokkul Pastef mais il soutient Ousmane Sonko. ko nga man. Euh, ay principe laay doxee. Mhm. du ma tooñ nit. doo si dugg du ma ci du ma. wala da nga ragal wax wax si du question de ragal. Mhm. man naa la aw ma lu ma ragal. mais loo xamante ni ça ne me concerne pas ça ne me concerne Guy c' est frère c' est camarade de combat boo xamante ni je respecte. ci liggéey mais wax nga léegi ni d' accord activiste di ànd ak eh, les hommes politiques sama perception la sama analyse bopp la mais ba tey dëggoo mu ubbi sama gémmiñ tuddal la turu nit ne la d' accord ma ca la muy def waaw ma ne la kon ma ne la comme ku si mel ni Abdou Karim Gueye activiste la Sonko la àndal ku si mel ni Guy Marius Sagna activiste Ah, il soutient Sonko même bu fekkee nee na bokkul Pastef ma ne la loo si xalaat nangu woo si wax non dama la ne waaw du ma fi nekk mhm. di tudd turu nit ndaxte samay principe mayuma ko permettre ma ko mhm. te ku ma xam xamewu ma ci tooñ liggéey bu ñuy def askan wi rafetlu nañ ko man rafetlu naa ko mais la may wax rek mooy que buñ tuddee suñu bopp activiste di mbubbu ay parti politique pour des fin politiques également donc loolu laay nekk loo xamante gis nga ni daal àndul euh, mun naa ne àndul parce que ñun mouvement la boo xamante ne d' abord c' est un mouvement citoyen ñun on n' est pas un parti un mouvement de l' opposition parce que état lu mu def bu rafetee dañ koy applaudir dañ koy saluer bu ñaawee tamit ñu de ñu dut ko baaraam benn askan wi lépp lu mu soxla ñun buñ ko mënee dañ ciy taxaw. Mhm. fii bëriwul ay mouvement yoo xamante ni dañuy kaasal askan wi di def ay don de yooyu bëriwul ñun Africa First dañ def nañ ko plusieurs fois tey les inondations bi mu amee fële ci Sénégal. Mhm. bokk nañ ci mouvement mun naa ne sax ñun ñooy mouvement. patriotique wala citoyen bi nga xamante ni def nañ collecte de fonds jënd ay saaku ceeb ay diwlin ay savon dem fële ca euh, Pikine Musdalifa dimbalee ko yenn askan yoo xamante ni ñoo ngi foofu suñu mbëbët moo nekkoon xool naka la ñu def sax ba gëj jëlee fa ndox mi. Mm. mais munuñ ko parce que bokkuñ ci instance de décision yi nekkuñ ministre nekkuñ président nekkuñ directeur ONAS donc amuñ possibilité mettre en place des politiques pour le faire. Mm. mais li nga xamante la suñ doole mën. Euh, def nañ ko dem jàppale leen ko ci lu mel noonu li may wax rek mooy buñ jël rajo yi rek di wax di critiquer di bind non des fois il faudra que ñu poser ay actes sur le terrain parce que askan wi loolu la ñu xaar ci ñun mhm. Africa First loolooy particularité par rapport ak certains mouvements dañuy kaas bu jotee agir aussi bu jotee également dañ koy def parce que nous mm. devons tous répondre à l'appel du peuple ci n'importe quel domaine. ñu leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal euh, Pape Nal euh, Dieye nekk euh, coordonnateur national bu mouvement Africa Fës ak membre bu alliance nationale pour la cause palestinienne beneen ponk bu am solo di problème de l'emploi des jeunes au Sénégal mu nekk loo xam ne góom la ci société sénégalaise góom boo xamante ni pratiquement. nguur gu ñëw du ko mën a faj euh, yow déjà en tant que jeune euh, yaa ngi jàng en tant que jeune mhm. euh, ban xalaat ban gis-gis nga am ban analyse ngay def ci ñàkkum xëy bi nga xamante ni moo am fii ci Sénégal te ba léegi euh, indi ci saafara jafe alors xam nga biñ jëlee suñ indépendance ba tey mhm. amul benn njiitu réew bu réussir la politique de l'emploi des jeunes mm alors loolu introgation boo xamante ne la woon mhm. ñëpp dañ ko war a posé wu lan moo tax yan est-ce que stratégie politique yi nga xamante ni état bi ñoo koy mettre en place de 1960. Mm. jusqu'en 2020 jusqu'en 2021 lan moo tax ba tey mënul permettre à ce que jeunesse bi yëpp liggéey mais évidemment mm-hmm. état bi mënul employer ñëpp parce que l'état emploie juste euh, pour les besoins de l'administration ay administrateurs civils yi enseignants yi hôpitaux yi armée gendarmerie par concours mm-hmm. te concours yooyu d'habitude day sélectif mm-hmm. souvent ñu bëri di koy def duñ am récemment maa ngi dégg ne plateforme bi nga xamante moo war a recruter cinq mille jeunes yi actuellement il y a plus de soixante mille jeunes yoo xamante ne ngi ci inscrire mhm. imagine kon loolu day wone ne parce que ñi ci inscrire yëpp jàppal ne am na ci ñoo xamante ni inscrire nañ pour juste am liggéey mais newul luñ seen volonté newul seen bëgg-bëgg mhm. souvent da ngay gis koo xam il a son doctorant en physique wala en mathématique muy dem nekk benn enseignant un mhm. un doctorant je te noonu dem na jàngale amaana sa loolu neexu ko woon mais amul pexe. moo fi liggéey amul moo fi alors donc tey jii aussi état bi mënul employer ñëpp comme ni ma mm. koy wax mais mm. l' état doit créer des conditions bi employabilité des jeunes maanaam. Mm. Euh, est moom lay def nii. xam nga tey euh, comme mm-hmm. comme récemment le président de la république le jeudi 22 avril 2021. avait convoqué benn conseil présidentiel fële ca Diamniadio. Mm-hmm. dajale fa jeunes yi ne day waxtaan ñoom déjà man foofu d' ma ci conseil des jeunes de présidentiel euh, pour l' emploi des jeunes boobu. lan moo tax parce que tey imaginez président conseil communal wala départemental wala régional des jeunes yëpp ñi ci gën a bëri ci majorité présidentielle bi lañ nekk boo leen dajalee fële ca jam ñaajo ne da leen di déglu duñ la wax la nga xamante ni mooy réalité bi nekk sur le terrain lañ lay wax mooy la neex président la nga xamante ni dina ko neex ba ñoom duñ am benn problème ak seen i mentor politique de un lu ma d'accordul mooy nga jëlee jeune bu dëkk Tamba Thiès Kolda Goudiri ba Kédougou indi ko dakaar may ko temps de parole trois minutes pour mu relater la tous les problèmes des jeunes qui habitent dans son terroir. Mhm. yooyu noonu yëpp ay fee la xamante ni man d' ma ci lu ma d' accordoon mooy le président de la république. Mhm. comme nam koy defee campagne politique présidentielle locale bu jotee. Mhm. mu def le tour des régions man lu ma d' accordoon mooy. Sénégal 14 régions la. lu ma d'accordoon mooy le président de la République def benn agenda am rek tey kat Kaolack laa jëm. il la journée à Kaolack avec les jeunes de Kaolack. am fu mu leen convoqué toog waxtaan ak ñoom ñu relatel ko problème yi nga xamante ni Kaolack am na ko mu def noonu wasalika Tamba def ko Thiès def ko Fatick def ko feneen ak feneen su ñibbee nag moom mhm. mu jël temps yam ak mhm. ses ses ses xool région bu nekk lan la fa war a def mu def ko fa déjà euh, ci ci ci ci yooyu problème ji am mooy gis nga Mansour Faye xaalis bi ñu ko joxoon pour mu jàppale Jakarta maani ak mhm, Kaolack mais président Macky Sall xamutoon ne sax xaalis bi nekk jàllul il a fallu que mu poser la question au gouverneur ba gouverneur Mbengue bu Kaolack jóg ni ko président ñun kat xaalis yëguñ gisuñ ci ba mujj gi ñu mujj ko génne jox leen merci beaucoup yaa ngi lu mel noonu ce qui hmm. veut dire que président bi xëy am na yenn information yoo xamante sax du ko am ci politique yi nga xamante ni da koy dawal hmm. yooyu yëpp ay erreur la yoo xamante ni daf ko war a éviter man lu ma d'accord te en plus imaginez euh, tey jii nii euh, ANPEJ lañ njëkk a def pour résoudre l'emploi des jeunes hmm. ANPEJ ça n'a pas ñu indiwaat DER ça n'a ñu indiwaat FONGIP ça n'a pas alors tey jii di bi ñu indiwee ANPEJ. lu tax nga ne ñoo yëpp réussir mais DER bi c'est récent. ñu ngi ñu pourtant ñu ngi financé ay jeunes. porteurs de projet je vous explique tey jii nii. Mhm, mhm. financement boobu warul nekk xaalis booy jël jox ko ndaw bi rek financé ko. kon lu ngeen bëgg. luñ bëgg mooy ndaw bi mhm, boo ko financé. parce que imaginez tey ñi ANPEJ jot a financé est-ce que tey am na ci koo xamante ni business am moo ngi dox ba vraiment chiffre d'affaires am di yokk ñi ci gën a bëri tey si fañ nekkoon fa lañ nekk ba tey te man je me boo financé nit ki yaa ngi xaar ci moom ay suivi yu positif. Mhm. yaa ngi xaar ci moom ay résultats yoo xam ne yu. positif tamit mu fay ñu mën a financé ñeneen a fay ñu mën a financé ñeneen te moom également dafa war a nekk koo xam dafa war a utiliser xaalis boobu liggéey ci ba nekk sax un employeur. maanaam koo xamante ne dina mën a employé yeneen nit parce que loolu mooy euh, loolu mooy nekk réussite politique boobu noonu mais tey nga jël ay milliards def ko ci ANPEJ wooy finance te ay coloration politique à ah tey jii nii da ngay gis euh, euh, ñoo xamante ni c'est des responsables de l'APR de l'APR benn ville léegi bu ñeneen ni déposé peut-être ñeneen yi nga xamante ñoo nekk ci mouvance présidentielle pour clientélisme politique ñoom la ñuy favoriser au détriment des autres tey jii nii euh, ki nga xamante ni moo nekk Pastef wala réew mi wala nii bu dee bon peut être réew mi récemment bu roog soow rejoindre na le président Macky xëy na bu ñu déposé dinañ <laughs> mais koo xamante ni moo ngi moo ngi moo ngi passé moo ngi passé bu déposé bu hmm. déposé contrairement koo xam moo ngi APR ki nekk APR la ñu gën a favoriser parce que mbirum état lañ ko def alors que warul demee noonu mais mais lu wax loolu xanaa si si bi da bind APR wala da ngay bind réew mi wala da ngay bind PDS wala da ngay bind euh, Pastef non doo ko bind waaw mais Moro Sénégal lañ nekk je te mm-hmm. loolu ñi koy gérer waa état bi lañ tey jii nii mun nga dajale sa dëkk ay dose yu bëri dem ba ca koko koko ko war a gérer wala ka koy jotali nga ne ko kat lii kat samay élément lañ dugalal ma leen nga jël mu financé leen maanaam falaay laay waxee te dafa war a am transparence man je dikk dis que ay fonds ay yooyu waruñ ko jël rek. kon yow bokk nga si ñu naan nañu nañu nañu auditer DER. dañ ko war a auditer. auditer DER dañ ko war a auditer xool ñaata lañ ko jox au début. Mhm. ñaata nit la financé ñim finance est-ce que nañ ñim financé lam leen financé woon. ce mhm. que réussir nañ ci ñaata moo fa des. xam nga tey problème itam mooy da ngay jël ay institution teg ko fi jox leen mhm. ay milliards mhm. xaalis ba ñu waroon financé nit ñi ñoom ci boppam ñoo koy consommer mhm. alors que loolu ay fee yoo xamante ni problème la tey jii nii je me dis am na yenn kon daal yow da nga bëgg a wax président Sall lim teg yëpp lim teg yëpp wax du saafara ñàkkum xëy fa yàlla si man xam nga nag xam nga nag il faut être un nihiliste nag pour dire que ndaw yi def conseil présidentiel déglu leen yooyu yëpp nga ne évidemment man nier que ne DER am nañu financé on peut pas nier que ne AMPES am nañu financé on peut pas nier que ne FONSIP am nañu financé mhm. parce que fu ma ko taxawee wax keneen mun na ma contredire mhm. kon donc am nañu financé mais ña gën a bëri tey boo defoon sondage mille mhm. personnes jàppal ne seulement les cent sont financés huit cent euh, neuf cent yeneen yëpp mun nañ leen euh, mun nañ leen ban a bañ a financé est-ce te problème mooy que fina xaalis boobu ñu leen di jox ci ñoom lay delluwaat ci seen kii ci seen militant politique lay delluwaat te loolu moo dul yoon dafa war a am benn transparence parce que xaalis la boo xamante ni c'est pour la population sénégalaise xaalis la boo xamante ni population bi ñoo ko moom te si ñoom la war a mën a. kon yow looy suggérer le régime en place merci beaucoup xam nga tey lu may suggérer le régime en place mooy que mu mettre la pression. Mhm. aux entreprises privées ñu recruter le nombre de jeunes demandeurs d'emploi dans ces entreprises. lu ma leen di euh, proposer mooy ñu mettre la pression parce que tey it suñu économie boo seetloo entreprise privée yi ñoo ko ñoo ko il faudra tamit état bi tam liggéey pour nationaliser certaines entreprises ba mun leen permettre ñu mun a phagocyter également mhm. toute cette demande toute cette masse de jeunes qui demandent vraiment des des emplois dans les entreprises mhm. parce que ñu bëri am nañ ay diplôme professionnel diplôme professionnel entreprise rek moo la mën a jël te entreprise fi gën a bëri état moomu ko mhm. ay firme multinationale ñoo ko moom te du ñuy recruter souvent li bëri dafa jot état bi mettre leen pression pour que ñu recruter jeunes yi nga xamante ñoo ngi déposer foofu seen CV am bi ñu bañ a fàtte également jeunes yi nga xamante parce que on définit le chômeur comme une personne qui a des qualifications professionnelles te amul amul xëy. Mhm. te ñooñu newuñ rek ñu jóge ci. université mais mais chômeur mooy ku euh, a liggéey. waaw perdre yaa ngi dégg mhm. ba perdre liggéeyam toog deful dara ñi nga xam ne mësuñu am xëy mënuñ leen tuddee chômeur. alors ñooñu leen fàtte. waaw ak ñi nga xamante ni génnewuñ ci université génnewuñ ci institut formation professionnelle mais am nañ seen métier ci askan wi lañ bokk. Mhm. ci jeunesse bi lañ bokk ci chômeur lañ bokk amuñ liggéey te dañ leen war a accompagner ci si nga yi nga xamante ni ñoo ngi ci ñoo ngi ciy yëngu. Mm-hmm. man lu ma dàkk en plus dafa am yenn secteur yoo xam il faut que ñu développer ko ñu promouvoir ko parce que réew mënul développer sans l' agriculture tey jii ni man am na benn jour ma dem Casamance def fa deux semaine mm-hmm. mais je me dis comment l' État peut la Casamance. comment aussi la jeunesse casamançaise avec tous les potentiels bi Casamance am ñu bay fa mm-hmm. Casamance ñëw dañ naan dañuy ñëw Dakar di def ay gardiennage di def ay alors que tey Casamance moo gën a naat suuf ci ci Sénégal tey Casamance rek waroon na permettre Sénégal. ñu am autosuffisance alimentaire. waroon na permettre Sénégal duñ jëggaane ji ceeb duñ jëggaane ji légume duñ jëggaane ji fruit tey dama doon wax état bi mu implanté fa ay usine de transformation de fruits ay taba am fa ay rizières yoo xam ne day permettre jeunesse bi nga xam bëgg nañ liggéey ñu dem fa. Mm. béy benn usine de transformation yi ça peut phagocyter tout cette masse de jeune qui demande des emplois est-ce que donc yooyu yëpp ay mbir yoo xam état bi dafa war a accompagner xalaat ko liggéey ko boo jógee ci Casamance demal ay zone Lompoul bi la zone des Niayes xoolal la fay yàqu ci ay mbirum produit yoo xamante ni. Mhm. askan wa fa nekk dañ koy dañ koy def. Mhm. maanaam gars yi bëgg nañ liggéey. Mhm. état bi fa mu war a investir la investirul te faa yooyu lan moo ko waral mooy munuñ nekk Sénégal nekk réew boo xam dañu ndóol ba pare suñu ministres yi nekk ay milliardaires. ministre est-ce que salaire am boo ko dajalee at bi mën na un milliard benn kon donc ministre naka la mën a amee kër. buy jar ay millions et millions ay milliards di dawal oto boo xamante ni ay soixante quinze millions lay jar ci réew moo xamante ni voie de développement sa tolooguñ fa dafa jot ñu wàññi suñu train de vie état benn caisse noire yi nga xam ñoo ngi ci yenn institutions yi ñu supprimer ko wala ñu wàññi ko mm-hmm. fonds politique yi ñu wàññi ko wala ñu supprimer ko parce que ay yàq la yenn institutions yi nga xam ne ñoo ngi fi comme ay haut conseil économique social envir ñaata haut conseil économique et social ñoo fi nekk <laughs> ku ci ne am nga kër am nga oto am nga indemnité dañoo gën enseignant bi dañoo gën professeur bi dañoo gën médecin bi dañoo gën soldat bi nga xam moo ngi Casamance di jàndoog rebelle yi gënuñ ñooñu ñooñu ñoo leen gën a mérité mais ay institutions loo xam c'est des institutions budgétivores qui n'ont pas d'importance pour le pays budget huit milliards au conseil économique social et environnemental. Mm. nga foog suñ ko supprimer woon warul mun a financer yenn jeunes. Hmm. warul mun a créer ay entreprises. au conseil des collectivités des collectivités territoire. <laughs> buñ ko supprimer mais so non je je vous <laughs> leen ma ngir yàlla ak yonent bi. ñaari institution yooyu. Hmm. lan mooy seen liggéey ban solo lañ am. assemblée nationale dëgg la c'est l'hémicycle mënul ñàkk ci réew. mënuñ ko supprimer tamit. Hmm. mais crédibilité am dafa des ak na waroon taxawoo askan wi. man je suis sidéré et écœuré quand j'écoute ou bien j'entends des députés dire oui man député Macky Sall laa. Mhm. xaw ma loi bu fi nekk bu fi nekkul député Macky Sall laa député warul am loolu. député dañ leen fa teg pour qu'il représente la peuple pour ñu kaasal askan wi wax seeni jafe-jafe te lu ma gën a neexari aussi mooy assemblée nationale ay paa rek a fa nekk jeunesse bi dafa jot tam ñu am fa benn représentativité. Mhm. parce que la ñuy dund ñun ñoo ko xam foog ñu am ku toll ñu ñun ak at di ñu kaasal di wax suñu problème ngir état bi tenir en compte. parce que tey je me loo deful de 2012 à 2021 nekkul de 2021 à 2024 nga koy def évidemment parce que loo deful en 9 ans est-ce ko mën a def à l'espace de 3 ans affaire bi nekkatul jël ay milliards def ay indr ampère non c'est pas ça affaire bi mooy nga mettre nga nationaliser d'abord say entreprise moom ko hmm. affaire bi mooy nga mettre la pression aux entreprises privées yi fi nekk affaire bi mooy nga accompagner les PME et les PMI parce que tey PME ak PMI yu bëri maanaam PME petite et moyenne entreprise PMI petite et moyenne industrie yoo xamante ne ay sénégalais ñoo ko moom ko ñu concurrencer leen ak ay firme multinationale ba tax ñoom ñu daanu mm-hmm. imaginez PME ak PMI PMI yooyu ñaata nit lañ waroon employé te say say nitu doo say doomu réew ñoo ko moom mais da nga privilégier yeneen entreprise au détriment de yooyu ba mm. ñoom ñu daanu benn exonération fiscale yi nga xamante ni ñoo ngi koy defal certaines entreprises man j'ai été sidéré quand j'ai entendu que Eiffage 1000 lay fay <laughs> comme euh, fisc domanial Euh, état Sénégal Eiffage 1000 francs il a fallu que gars yi mettre la pression bañ ko bañ régoni bañ bañ bañ renégocier waat contrat yi mais yooyu mbir la yoo xamante ni moo ngi xew ci réew mi te askan wi wuñ ko suñ ngeen suñ politiciens yi bu ñu toog fa ñuy toog di décider askan wi nañuy gën a bay xel jeunesse bi nañuy gën a bay xel askan wi ndaxte askan wi dañu sonn trop franchement pour vous dire la vérité ils sont fatigués ils veulent travailler mais ils les jeunes veulent travail mais ils n'ont pas université bii di tamit nga xamante ni moo ngi fii mm-hmm. mais xoolal tey université la fa nekk ci nit à l'UCAD on a plus de quatre-vingt-dix mille étudiants alors que bi ñu koy créé en 1957 inauguré 59 fait pour un nombre bien déterminé mais l'État n'a pas tenu en compte du taux de l'évolution du taux démographique de la population ba mun parce que tey dëgg la am na yeneen université ñu créé woon en 2007 c'était pas des universités au début parce régional ou départemental de Thiès de Bambey de Ziguinchor. Mmh. pour benn capacité d'accueil bu limitée. mais jamono yi boo fa demee dañoo surpeuplé tout comme UCAD ni mu surpeuplé loolu moo tax mu mënuñ am qualité de formation. bu baax bu mhm. tey jii nii cours en ligne yu ñu wax ils sont obligés de le faire pourquoi parce que xam na ne université la fa nekk ci nombre en fii doyul. Mhm. nu ko continuer nekk rek amuñ fu ñu toog amuñ fu ñu toog. Mhm. ñun en deux mille en en deux mille dix-sept on était plus de waaye cent mille huit cent étudiants en première année ëppoon nañ ko sax souvent pour nga def cours da taxaw ci biti yow na nga dëgg micro li professeur bi di wax mm. condition yooyu nu ci nit mën a jàngee jeunesse boobu ngay former génnee leen ci université yi jox leen ay diplôme master ay diplôme doctorat des diplômes pédagogiques lan la leen di njariñ dafa jot tey ñu orienté aussi suñu suñu suñu système d'éducation suñu système éducatif au métier de l'avenir mm. orienté leen ci technologie orienté leen ci science orienter leen ci euh, des métiers de l'agronomie parce que loolu maanaam monde bi fala jëm il faudra que ay yenn de branche yu nekk fii au euh, à la fac de lettres ak yeneen faculté yi néew ma ñu tëj ko mais nañ xool naka la ñu def ba dugal ci yenn branche yoo xam ne dina professionnaliser diplôme yi ba képp ku ci gën même bu la état employéwul direct mais état dina la mettre dans des conditions favorables ba nga mën a créer sa entreprise. Mm-hmm. am sa auto emploi. voilà beneen euh, poñ euh, euh, ponk bu am solo ñu mm-hmm. aborder ko parce que temps bi bareetul di mm-hmm. problème la crise israélo-palestine. mu nekk crise bu yàgg boo xam ne depuis 1948 je pense mi ngi fi. récemment gis nga affrontement yi ngeen ay ay nit yu baree bari. ñàkk ci seen bakkan foofu ca Palestine ak Israël ba tax yéen ngeen jóg ngir daal di ah, xeex loolu le c'est vrai que récemment am nañ cessez-le-feu naka la ñëwee seen kuréel gi nga xamante ni teg ngeen ko alliance nationale pour la cause euh, palestinienne naka la leen inspiré exactement. alors xam nga histoire des juifs et des palestines dafa nekk le complexe. Mm-hmm. parce que boo seetloo. Euh, Palestine dafa nekk benn euh, zone boo xamante ni. Mm-hmm. dafa symbolique pour ñett diine yëpp. muy christianisme tey boo fa demee l'église de la nativité maanaam yonent yàlla instant fa la juddoo mhm. benn boo demee euh, masjidul alaska moo ngi foofu noonu muy juma bi nga xamante ni mooy troisième lieu saint de lislaam ñaar boo demee aussi pour juif yi mur des lamentations fa la nekk mhm. te mur des lamentations boobu noonu euh, romains yi ñoom ñoo ko daane woon soixante-dix avant Jésus-Christ mhm. dàkk juif yi pour ñu ñu gën foofu noonu bi juif yi tukki jee nag ils se sont dispersés partout dans le monde tey bi ñu dispersé wu partout dans le monde taxul condition de vie favorable ñu am ko foofu noonu parce que juifs yi ils ont toujours été victimes euh, de birimates mhm. de massacres mhm. de mal de vexation mhm. waraloon ñu amoon seen xel ne bés dina jot ñu delluwaat ci seen terre terre promise boobu nga xam ne jàpp nañ ne moom mooy moom mooy moom mooy la la Palestine. ils ont fait plusieurs tentatives de retour mais xamoon nañ ne retour boobu du yomb parce que toutes les conditions n'étaient pas favorables mais am na ci yenn juif d'Europe yenn juif africain yoo xam ne ñoo ngi doon jéem a dellu mais c'est vers les années 1870 avec le premier mouvement qui s'appelait Abat Sion euh, amour de Sion ça dire benn mouvement la woon boo xam ne l'objectif c'était de retourner dans leur terre promise ñoom loolu la ñu koy waxee de mm-hmm. Palestine mm -hmm. mais ça n'avait pas réussi il a fallu attendre le congrès de Bâle de pour que ñu am benn pensée politique boo xamante ni Théodore mm-hmm. à faire savoir aux jot ñu dellu ci seen terre promise am boo xamante ne ça va répondre aux normes internationales alors même congrès de Bâle bi également mm. il y a eu quelques problèmes parce que mënutoon réussir pourquoi parce que à l'époque la Palestine était sous l'occupation euh, de l'empire ottoman qui est l'actuelle Turquie mm-hmm. et Théodore Herzl avait fait plusieurs interventions au niveau des sultans pour que mu may leen territoire bu ñu bañ est te ma waxalal dara en les Britanniques avaient proposé aux Juifs d'occuper Luganda bi nga xam moo nekk Afrique. Mm. Uganda Uganda. Mm-hmm. Euh, Théodore Herzl nangu woon na ko te loolu moo indi woon sax benn problème bu amoon ci biir mouvement bi parce que ñenn ñi jàpp nañu Théodore Herzl dafa trahiroon l'objectif de départ qui était le retour des juifs en Palestine. Mm. loo xamante c'était impossible parce que à l'époque la Palestine était euh, sous l'occupation de plusieurs puissances étrangères. Mm-hmm. mais nag bi nga xamante ni Euh, palais euh, euh, vers les années première guerre mondiale deuxième guerre mondiale nga xamante juif yi li leen doon rey ci àdduna bi bëroon na trop mm. donc seen retour seen terre promise dafa jotoon mm. léegi bi ñëwee nag deuxième guerre mondiale pour que juif yi jàppale anglais yi ci xeex bi il a fallu que ñu signé ñoom accord pour que ñu leen kat léegi boo leen jàppalee bañ gëñi dina leen mën a permettre ngeen dellu seen terre promise mm. en 1947 la révolution de 181 de l'ONU ONU partagé Palestine en trois benn bi jox ko juif yi nga xam ñoo nekkoon minoritaire jox leen li gën a ëpp ci suuf si li gënoon naat ci suuf si beneen mu jox ko arab yi nga xamante ni ñoo nekkoon majoritaire jox leen fi gën a bon ci suuf si li gën a ndaw ci suuf si beneen bi mu jël Jérusalem nga xamante ni benn lieu de brassage mm. interreligion la mu def ko euh, benn zone boo xamante ni zone internationale la mm-hmm. alors bi mu defee résolution boobu loolu arrangé na juif yi juif yi nangu ko arab yi arrangé wu leen ñu bañ ko le lendemain bi bi nga xamante ni en 1948 euh, anglais yi gën nañ fële nga xamante ni mooy Palestine le lendemain David Ben-Gurion déclaré la naissance de l'État d'Israël alors oups guerre bi fa la éclaté mm -hmm. depuis lors de 1947 48 ba jamono ji may wax a yow la crise israélo-palestinienne n'a fait que s'aggraver mm -hmm. avec des morts des bombardements des massacres te loolu dafa am ci kanamu communauté international dafa am ci complicité wu États-Unis d'Amérique ci France ci Angleterre ci toutes les puissances étrangères yi nga xamante ni ñoo ngi fi pourquoi pour des questions géopolitiques géostratégiques parce que lan juif yi dañ leen war a nangul ne aussi bokk nañ bu ñu ëppul xam-xam ci monde bi bokk nañ ci. Hmm. et ils sont puissants. benn hmm. koppar bokk nañ ci ñu ko ëpp ci monde bi. tey boo demee ci États-Unis d'Amérique le système de défense américaine est composé et est à pour cent par les juifs l'économie américaine est gérée par les juifs tey dañ naan sa États-Unis d'Amérique pour nga falu fa il faudra que nga nekk en parfaite collaboration avec les juifs tey jii nii boo seetloo juifs yi fii ci suñu réew di Sénégal fii laa njëkkee agriculture dañ ci investir social dañ ci investir même suñ système euh, d'espionnage dëgg naa ne sa juif yi seen loxo gënu ci ce qui veut dire que tey réew yu bëri duñ nangoo jàppale Palestine pourquoi parce que dafa am foo xamante ni Israël fala leen téye mm. fala leen tënk donc ñoom mettre en avant les intérêts de l'humanité mettre mettre tuñ en avant les droits de de de de mais lu ñu mettre en avant mooy seen intérêt yenn réewu naar yi tamit lan moo tax duñ ci wax parce que Palestine aussi Israël aussi dafa am fu mu leen téye mm-hmm. alors que ñoom ñoo waroon booloo nekk benn combattre Israël ci li nga xamante ni moo koy def parce que je vous dis euh, boo seetloo en mille neuf cent soixante-sept quelque chose comme ça euh, juifs yi jo euh, palestiniens yi donc jotoon nañ am benn benn victoire Euh, non euh, Israël yi ñoom ñoo dóoroon donc euh, les les les la ligue bi nga xamante ni dafa composé woon pays arabe yu bëri doon jàppale donc Palestine ci xeex bi. te loolu lan moo leen gën a dooleel mooy ñi nga xamante ni ñoom mooy mooy les États-Unis d'Amérique parce que États-Unis d'Amérique moom mooy mentor Israël mentor Israël di koy jox xaalis di koy financer ay armement mentor Israël fële nga xamante ni aussi mooy conseil de sécurité des Nations Unies parce que conseil de sécurité des Nations Unies rek moom moo mun a décider sur le sort de de la question israélo-palestinienne te boo seetloo États-Unis moom teewal lépp luñ bëgg a ay daan ñu bëgg a teg ñoom buñ ko bañee rek te conseil des nations de de sécurité de de l'ONU bu fa benn état bañee rek résolution benn dugg donc du jàll mhm. alors que là c'est problème foofu donc dañu interpeller directement les les États-Unis d'Amérique parce que ñoom buñ fàttale ko ñoom rek ñoo mën ñoom ñoo mën a régler la situation te ñoom nañ tenir en compte que ñoom modèle de démocratie lañ dans le monde te États-Unis d'Amérique boo seetloo anglais ñoo leen coloniser woon il a ñu def benn xeex bu métti entre ñoom ak anglais yi seen indépendance xam nañ donc lan moo nekk ci nooteel xam nañ lan mooy ñu tënk la xam nañ lan mooy ñu xañ la sa ak ak sa yelleef donc loolu nga xam ñu lañ dund ñoom waruñ ko mën a teg ci état wu euh, Palestine pourquoi parce que Israël benn dafa am benn position géostratégique qui est favorable pour maintenir ou bien pour sécuriser euh, la la sécurité euh, pour sécuriser euh, l'Europe mm. et, les États-Unis donc dañuy def le tout ba maintenir ko protéger ko jox ko doole te kii nii Israël li muy def tegu ko ci yoon Benjamin Netanyahu lan moo tax mu mu jóg récemment di bombarder Palestine pour des intérêts politiques aussi dañ ko topp ci ay mbirum corruption dans son pays par la juridiction de son pays léegi pour camoufler euh, histoire boobu noonu muy attaquer Palestine di rey ay jullit parce que lii nga xam moo ngi xew Palestine même bu ko boo nekkul jullit war na nekk chrétien mais dafa jot nga nekk nit am xol di yëg danga koy nakarlu parce que xoolal xale yuy jooy ngir seen waajur yi ñuy rey mm. xoolal xale yuy jooy ndax seen i waajur la ñuy jàpp di leen di yóbbu xoolal xale yuy jooy ndaxte seen i parents la ñuy fekkee fu ñu leen di dënsee di leen di suul xoolal kër ñuy bombardé jumaa yi ñuy bombardé hôpital yi ñuy bombarde xoolal nit yi ñuy bombarde xoolal jumaa yi ñuy dugg di saccager di rey teguñ ko fenn teguñ ko dëgg teguñ ko ci yoon xoolal suufu Palestine Palestine bi nga xamante ni ñoo ngi koy jël tout ça c'est des ne dafa jot communauté internationale bi wax si artu si man nag fan laay euh, condamné mooy suñu état Hmm. parce que seen déclaration. déclaration bu état au Sénégal bu gouvernement Sénégal bu état Sénégal. Hmm. démb maa ko doon wax ci déclaration bi dama ne. Hmm. askan wi. juste quelques minutes moo ñu dese. merci beaucoup damay damay wax ne. Euh, communauté internationale beeg nationale bi. gouvernement Sénégal déclaration bi ñu def. askan wi la population n'est liée nii de près nii de loin à cette déclaration. Mhm. état Sénégal warul jël déclaration pour pourquoi parce que nañ fàttaliku depuis 1975 moom moo géré dossier Palestine. maanaam ni mu neutre si mbir mi ni mu neutre parce que lan la wax njaxanaay lan la wax. way Israël désescalade. amul mhm. désescalade à Palestine. Mhm. lafa am mooy terrorisme. banditisme massacre. xeet bu ko ëpp doolee ñëw di bombarder nit yoo xamante ne ay xeer rek la yor di leen di safara di leen di boom di leen di rey di violer seen i jigéen. mais loolu du du du escalade loolu assassinat la terrorisme la violation des droits de l'homme la te loolu waruñu ko seetaan président Senghor je vous rappelle le 2 de novembre 1971 nekkoon na njiitu réew africain sénégalais euh, chrétien bu demoon Proche-Orient pour faire des médiations pour résoudre la question israélo-palestinienne ñu jóge foofu noonu Abdou Diouf a fait pareil. Mm-hmm. Abdoulaye Wade a fait pareil donc le président Macky Sall étant un jeune président. Mm-hmm. boo xamante ni lépp fi ko fekk. lan moo mën a tax moom mu jël déclaration boobu pourquoi parce que am na ay intérêt yoo xam Israël am na ko ci réew mi hmm. loolu warul du dëgg du yoon loolu warul am xécélophobie waaw waaw xam nga hmm. xaaruñ loolu ci yow monsieur le président de la république cécélophobie hmm. ya yàggu maanaam cécélophobie chaque jour cécélophobie lay doon ba jamono ji cécélophobie cécélophobie dafa jot tey buñ sañoon sax feu dootul amati ba ñuy cécélophobie ñun buñ sañoon luy solution bi lay solution bi mooy que États-Unis ñu def beneen résolution au sein de l'ONU xoolaat naka la ñu def ba euh, interdire à la Palestine muy violer les droits donc euh, le, les droits palestiniens reconnaître Jérusalem comme capitale de la Palestine. donc tout entre les mains des États-Unis tout est entre les mains de l'ONU nga xam ñoom ñooy mm. indi problème bii nii yëpp. Mm-hmm. tout est entre les mains des États-Unis d'Amérique. ñoom laay ind ñoom laay ñoom laay kii ñoom laay euh, euh, joxoñ baaraamu tuuma bi. Mhm. ñoom la ñoom laay dut baaraam. demoon ngeen seeti euh, l'ambassadeur. waaye demoon naa seeti ji l'ambassadeur de la Palestine lan ngeen ko wax exactement. waaw juste wax ko ne wax dëgg fi yàlla amoon nañ mbégteel met met mbetteel trop ci déclaration suñu état dalal xelam wax ko ne askan wi contrairement ak li état wax ànd ñun ci loolu ñun moom la ñuy jàppale Palestine la ñuy jàppale. Israël la ñuy duut baaraamu tuuma Israël la ñuy wax mu bay li muy def États-Unis la ñuy wax mu bàyyi lu muy def ONU la ñuy wax mu jàppale population palestinienne Ligue arabe la ñuy wax ñu bay seen noppi gi ñu noppi engagé wu jàppale Palestine ci xeex bi nga xamante ne mu ne ñu rafetlu na ko te en plus Sénégal dafa musa am benn taxawaay bu rafet bu am ci question israélo-palestinienne moo waral démb bi ñu defee rassemblement askan wi yëpp ñëw wuyu si ñu mhm. mu fa moom teew ñu tenir fa ay yoo xam discours rafet la te jàpp nañ ne dina jànn au plan dina jàll au plan national et international ci loolu aussi je profite de l'occasion pour waaye askan wi yëpp ci xew-xew bi nga xam ne dina am dimanche muy le 23 mai lu xewati dimanche euh, benn rassemblement pour wax ci mbirum góor jigéen yi waaw góor jigéen Africa First ca la bokk incha allah déet góor jigéen fii ci Sénégal ñoo ngi ci biir le 23 mai ñoo ngi ci biir mm. duñ nangu mukk parce que góor jigéen Coran da ko banir Bible da ko banir léegi ñun naka la ñuy def pour des questions aussi toujours d'intérêt di nangu ñuy nañuy daganal ay mbirum contre nature si suñu réew ma ne ñoo bañ duñ ko nangu te incha allah góor jigéen yi suñ suñu réew fii nii moom xanaa. duñ fi neexle duñ fi neexle moom ça moom je di le dis duñ fi neexle. naa la ñu bàyyi la nga tàggatoo ak euh, auditeurs yi. Euh, bon jërëjëf euh, moro vraiment am na mbégte trop encore une fois ñëwaat fii ci réew mi parce que je pense que ñëwoon naa fi émission avec colonel euh, tey nga invité waat ma fi buggoon naa émission bi nekkoon trois heures de temps nga xam dinañ waxtaan ci lépp <laughs> mais xëy na liy duuf ci nag bi yëpp xëjul ci cin li di lay wax ne aussi kontaan nañ trop ci invitation bi mm. di jàpp ne aussi lépp liñ fi waxtaanee tey amal na njariñ askan wi bu rafetee ñoo ngi sant yàlla bu ñaawee ñoo ngi ci jégalu mm. di nuyu aussi ñëpp ñi nga xamante ni actuellement ñoo ngi ñuy déglu parce que xam naa ñu bëri ñoo ñuy déglu euh, di leen di sant di leen di gërëm di leen di woowaat encore une fois ci manifestation Guinamas 10 heures place de la nation pour nakarlu mbirum góor jigéen fii ci Sénégal ayca ngi noonu kontaan nañ bu baax doon la dalal Pape Nalla Dieng nekk étudiant en master des relations euh, internationales et stratégiques ci université Cheikh Anta Diop national euh, bu mouvement Africa membre bu alliance nationale pour la